That was his fault. Sekk ton a ngi noonu de tof ay sekk ngay dawal de sant yàlla jërëjëf si yërëm bi. ñaari waajur ngeen ëpp Siteu. sànq ngay dawal. laa ilaha illallah. sànq ngay dawal de. Tra may ko dañ ko may oto te yàggul. sànq tamit dañ ko oto de. cayu sànq am na oto de. moo ca. ca jërë ngeen jëf mbokk yi ñi ngi amaat mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkoor waat ak yéen yaakaar naa ne nag tey jàkkoorloo bi mbokk yi di jàkkaarloog yéen mbégte la bu ñu waxee mbégte muy mbégte mu mag a mag a mag a mag ci ki nga xam ne moom la ñu jàkkaarlool bu ñu ko waxee kii di 5 tonnes ki Dembo Ndiaye wala fan yu yàggul dara mbokk yi dañoo gis mu toog ne dafa ko sàcc li nga xam ne moom moo di motoom ne benn maaraam moom moo ko xabtal ba ñu jël li nga xam ne moom moo di motoom waaye yàlla mu dara tawut yàlla bu lay defaral daa mel ni ku lay yàqal ndax ki nga xam ne moom moo di sëñ Fallou sekk borom tapisserie Touba Xayran sëñ Fallou sekk ma ci Malika oto bii ma gis sama ginnaaw ngeen gaare moom la fas yéenee yéenee jox ko 5 tonnes pour jàppale ko ko que moto la jooy mu yëkkati li nga xam ne moom moo di oto daal koy teg ci loxoom mbokk yi moo tax yàlla mën na lu ne yàllaa ngi fépp ndax motoom la ñu sàccoon mu génn ci internet bi di jooy ne damaa bëgg kat mbokk yi ñu ma jàppale ma ba ma jotaat moto sëñ Fallou dégg loolu sëñ Fallou ci social gi sëñ Fallou ci dal gi sëñ Fallou nga xam ne lu mu yor nit ñee ko moomal boppam moo tax mu yëkkati ci oto yi ko suñu borom dénk mu yëkkati ci benn daal koy jox ki nga xam ne moom moo di 5 tonnes pour jàppalee ko ko kon dañuy jaajafal ki nga xam ne moom moo di sëñ Fallou sekk ndax bu ñëpp borom alal yëpp buñ meloon ni yow donte nag suñ borom dénk na laa tuut bu ñëpp meloon ni yow yaakaar naa ne kon kenn du bëtam kenn du jooy kenn du bëtam suuf nekk ci kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ne la yàlla na Serigne Touba ful sa alal yàlla nga bokk ci milliardaire u Serigne yi ndax li nga def kat yombut ndax nag looy gis nit di ko naw nit yëkkati na may na ko nit bu dee kër la nit may na ko nit bu dee leneen muy may na ko nit ba ci oto bii nii tey nga yëkkati jox ko 5 tonnes yàlla nekk njiglaayam waaye nag mbokk yi man naar naar yaa ngi dañuy waxtaan ak moom waxtaan li nga xam ne moom la ko Sëñ Fallu defal tey ban mbégte nga am moto nga doon jooy ñu yëkkati li nga xam ne moom moo di oto daal di lay jox waaw di wax onze billahi mina seytaan rajim di wax ne cat dafa gaaw xaaral ma ñaan yàlla musal ma si cat ak lamiñ ak ndog-ndog di wax onze billahi mina seytaani rajim di wax wan yetalataf min ku mu axaama lamiñ wu bon yëpp ak cat ak lamiñ waa dof di wax ginnaaw di wax na jina biha min jëmi laxwaali wa afaati wa tafsil lana biha min jëmi sayaati wa tarfaxoona biha hinda gën ahlan darajaati watu baale xoona biha axsana xayaati min jëmi xayraati fii jabaati wa dama cat dafa gaaw ta na maa ngi ko gërëm di wax maa ngi ginnaaw sëñ Fallou def na teraanga. waaw maa ngi koy sant bu baax gisoo tey ni ma bellee. waaw waaw tey daa leer rek. tey moom maa ngi sant yàlla bu baax. naa leen yar. liggéey bépp ñu ma defal dañ ma doon yàqal mais dañ maa defaral mhm. non sëñ Fallou li ma defal man dama comprendre quoi ndax man barke alxuraan pour man luy def lu baax lu mel ni amoon barke mhm. Serigne Saliou Mbacké ah. walaay Azim non xam tax man xawma ko musuma ko teg bët mais comme gis affaire may jooy xam sàcc sama moto mu yërëm ma woo ma téléphone dama cinq bul am looy wax naa la may oto waaw moo tax ba bële génn barke alxuraanul karim mais loolu noonu moom di wax borom Touba tapisi xayra boobu ah di wax cent pour cent daf yëpp si man boog tuuti reeto barke alxuraan kooku laal ma doxaan ndeyam ah! waaw ci ne <laughs> ah c'est que boobu yaa <laughs> ah ngi <laughs> booy isaani booy mbégte lañ wootee yaa ngi dégg di wax na siisu maan yi siisu yëpp nag te xam naa dinañ gën a siisu fi mu toll ku gaare mag gaare mais bi la Sëñ Fallu woowee ne dafa lay may oto est-ce que sama noon yi laa a xalaat surtout mbër yi nag gëmoon nga ko ba non xam nga jàppoon naa sax ñu dóor ndax xoolal démb

préférence ndax xam nga tax mhm. Sénégal dafa yàqu léegi mhm. nit ñi dañuy fen di digge lu ñu dul joxe xama mhm. loo xamante du nekkul ñoom loolu dafa bëri si dëkk bi ki duñ toll nii benn nit léegi day jekk-jekk woola di affaire showbiz naan danaa def nangam xam nga barke alxuraan mbaa xam ba léegi gisantewul ba léegi gisagoo Serigne Saliou Mbacké ba nga ne ñëwut daa yebal Touba laa war suba coono bi. Ah. barke alxuraan. ziare ji kan sëñ Karim wala. ay fépp kay. mbokk yi nag xam nga lan mooy problème bi. Hmm. comme jox na la bi nga won ko mbokk yi. caa waaw yow Sénégal preuve la bëgg waaye xam nga ne 5 tonnes wuyu ma. Hmm. man ma li problème bi man 5 tonnes. yaa ngi man lépp lu ma wax man damaa dof man damaa dof bay wax loo xam ne nekkul si man hmm. comprendre man defuma bay wax si loo xamante ni nekkul si man mhm. kii su ma woowoon ci ay waxu kese du ma woo fii di ñëw si ay waxi détail mhm. ba pare na yëkkati xaalis bëri jox ma ne ma commencé ko essence mhm. moom la ah. jox safar bi ah, xanaa xanaa ñoom ñoom ñoom Birama xam nga ñoom xaadim rek essence ak Serigne Bamba seen nit ñooñu nga xam ne dëkk bi Issa yi barki alxuraan lu waay wax ma dugg si ah? damay dawloo sa li ma ci naqari ku ma def plaisir na buñu demee plante da ngay ñàkk ah mais a ngaa dawal cinq kañ nga mën a dawal je suis intelligent nag man affaire dof dof la mais man je intelligent mais daal di wax dem war na Seydina Mohamed lépp lu ma naqari woon neex na ma waaw sëñ Fallou maa ñaanal ci barke Seydina Mohamed yàlla boo na ko caat seexlu lépp loo xam ne dugg na si yàlla na ko suñ borom jàppale ci loolu mu dem lu teg loxo na départ te ñu bëri dañoo war jël exemple si ñoom man ay nit fii man man a lekk si moom ñëpp barke alxuraan ak non non danga may ni baadu oto bee tax sa waay non non dañuy waxtaan non dañuy waxtaan xam Aziz Ndiaye nit ku baax la mu ngi def ay social Aziz Ndiaye mu ngi jàppale ñu bari mais dama ne la li kii def ñu ba moom tey ñu bari ñu ko doon war def si moom man ñeenti junni laa ma sa lekk si Aziz Ndiaye ak ni ma mel ci réew mi bàyyi liggéey ba barke alxuraanu karim ñeenti junni fa la fekk bada mais xam nga ay Sénégalais lañ woo ma ay géejawaay nga dëkk naa la jàpp mais d' accord nañu jàppale mhm. vidéo mu sama téléphone mhm. comprendre nga mhm. mais sëñ Fallou moom bis ni tey di wax tout derrière toi pour sëñ Fallou barke alxuraan damaa kontaan trop trop trop maa ngi koy sant di ko ñaanal jàmm vraiment instant yi damaa kontaan amatuma lu ma wax quoi waaw kon comme sëñ Fallou tamit donte bi muy joxe oto bi dafa yebal kenn koo xam te ni kal bi moom moo indi oto bi bi mu ko joxee mu indi oto bi mu yëkkati li nga xam ne moom moo di carte grise oto bi daal di ko koy jox ndax nee naa la nag tungu ne du néew ju métal Sénégal daa bëgg preuve sëñ baa ngi nii kii la sëñ fàllu sekk yebal ñëw sëñ bi jege si nii pour gars yi gën laa gis cinq ñëwal ñëwal fi mu baax taxaw baax na léegi sëñ fàllu moom moo la yebal loolu acca asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sénégalais yëpp di nuyu diaspora bi di nuyu axlu làmb di nuyu ñëpp di ñaan at bu bees bi yàlla may ñu si mbégte defal ñu si jàmm may ñu naataange si réew mi jàmm ak salaam tey nag li ma tax a jóg waa Touba Xayra ñoo ma yónni waaw pour mbër mi nga xamante ni mooy cinq tonnes di doomu géejawaay ñu teralee ko oto bii nii moo ma tax a jóg caabi yaa ngi nii carte grise baa ngi nii kayit yaa nii waaw waa Touba Xayra ñoo ko def te bàyyeeguñ ko nag ñu ci ginnaawam waaw des na yeneen ak yeneen yu war a ñëw waaw lii rek moom moom nuyoo la rek waaw waa tubaa Xayra dañ ko nuyoo rek mais des na yeneen ak yeneen yoo xamante ni war naa egsiwaat di ñaan ñëpp nag ñu jàppale ko Sénégal gi jàppale doomu géejawaay bi mu am ay komba ndax si làmb ji la bokk axlu làmb la bokk kon ñëpp war nañ see jàpp ndax doomu Géejawaay la doomu banlieue bi la waaw loolu waa Touba Xayri ñoo ma yónni woon pour ma jébbal ko oto bii waaw lew na ko doom mi ngi jooy ndeysaan non jarul jooy bul jooy yow lew na la bul jooy Touba ñoo la ko jébbal ndeysaan bul jooy non xam nga dafa am ay noon yoo xam ne xam nga taxaw du mu am dara si àdduna quoi man oh. ñooñu ñoo tax fi mu nii te xam naa fi ma njëkk a dem tey xam naa ko waaw xam naa fi ma njëkk a dem si oto bi xam naa ko. koy njëkk a dem ci oto bi. a sa doon yi koy sa kër noonu ngay dugg tey di piip piip daal am naa oto. bu na bu ko neexee mais tey toogoo woon ci at bu bees bi ñu toll ci 3 rek ñetteelu fan xaw ba ñetteelu fan rek ñu wàccee la li nga xam ne may la oto bu bees ban yëg-yëg nga am ci at mu bees bi. daa mel sa at la de. Ah, mu ne ko adduna min saat la de ñu ñett tamit masan san xol dafa sedd fi ma war a njëkk a dem laay xalaat barke alxuraanu karim ah? barke sëñ Touba kooku kay na ma xaar tay tay fa laa njëkke barke alxuraan wallaahi xasim barke Muhammadu Rasulullah makan dafa am loo xamante nii dafa dafa dafa gis nga doomu aadama soo ko xamul rek bu ko siisee comprendre nga mhm. am na ñoo xamante taxawoon nañ man du ma am dara si àdduna mhm. comprendre fi ma la waxee mhm. te man nag musuma xalaat ne dina am cadre <laughs> ko xalaat sama àdduna barke alxuraan musuma ko xalaat sama àdduna comprendre nga kon lii su ñëwee si man rek damay gën a sant yàlla bu baax a baax quoi comprendre nga affaire gis na yàlla buy defar day mel ni koy yàq am na ku woo tey nee na ma mercredi ñool ma may la frigo

mbër boobu am na mbër mag mu dëkk géej a rek dem sama koñ la paan oto bu weex la yor ah. barke alxuraan <laughs> barke Seydina Mohamed laytee ko doon déparé <laughs> barke alxuraan laytee <laughs> sama koñ la paan te laytee ko doon déparé dama ne la Issa Gueye guerre bi moom day saf mooy ñaan barke alxuraanu karim dama ne la mais lan ngay wax sëñ Fallou Seck non sëñ Fallou dama koy wax ne ko di ko gën a sant di ko wax ñun xam li mu def ni dafa sedd sama xol quoi moo tax instant mënu wax man abo ah fa may njëkk a daw fa may njëkk a dem tey laay la war a dem ni bu ngeen di tàggale man may dem barke Serigne Bamba Mbacke samay noonu yéen maa ngi leen di sant bu baax continuer rek bu leen nañ continuer rek képp ku ma mas a dem yóbbu ma ci Serigne jëm liggéey bul tegg sa tànk continuer ah waa man li booy makan barke suba suba sama waa koñ maire fonde bi jaay koñ maa pay ñëpp ndékki fonde barke alxuraan ma bi sàkkee sama moto li gën a garaaw ci affaire yi fi ma toog di commande la fonde 400 laa jënd fonde resa lu naan sama bëdi fulu ma xool gisuma moto bi comme si que sama koñ te fonde nga commande barke alxuraan maa jógee fajar géej ñëw fi ma toog di naan fonde man def maire bi dafa ma 400 resa naan ma xool ma ne gisuma ne ma sama koñ la ma laaj barke alxuraanu karim dama booy affaire noonu laa toog ndékk démb ndékku ma añu tey maa ngi nii comme noonu barke alxuraanu karim comprendre nga. mais fi ma njëkk a dem lay xalaat tey tey damay dem fële fa la wax jóge fa dem Malika jóge Malika dem a Sidi Diop ja tey kay barke Serigne Bamba Mbacke semaine bi fu ma waay gis rek maanaam fu ñu wax doon jaar dafa maanaam. tey tey maa ngi Sidi Diop ji tey barke alxuraanu karim maa fa sëñ Fallou Seck borom tapis di la wax sa tere kontaan di la wax sa tere tere tere kontaan. daa man teraanga di la wax sa tere kontaan non 4 mètres jees neer man xam lu non xam lu problème bi. ak la koy ñëw non li bu gën a neex mooy damaa teral as gor ku ko yeew rek gaan xol moo loolu quoi xam li problème Sénégal lañ lay woo may la benn 3000 bëgg laa rey ki appel kar kar vide sa téléphone mhm. xam nga mhm. xam ne musul a gis ba pare may la te woowu la loolu rek moo ëpp mooy mbégte mhm. dama ne bi nga saa gis sama barke alxuraan sama téléphone dem ñoo ko vide waa extérieur ñii Sénégal kar kar kur kar kaay ma ñaana la mu fee ñii naa la jàppale di waxi kese dañuy dul rek mais dama la sëñ Fallou li mu def ni kontaan makan daal di la wax ne daal fi mu toll <laughs> di la wax ne fi faaw nga xaaju xaajulu saa ngi moom <laughs> foo ne wax ne cinq tonnes jaar na fa rek soo mu wooyee jotoo man xamal ne damaa jàpp damaa dem Touba suba incha allah bisimilahi rahmaani rahim di wax saytaane yi yàlla na yàlla musal ci ñoom al yatal taf min kum axama seenu lamiñ di wax onze billahi mina saytaane rajim di wax saytaane mu yàlla na ma yàlla musal seenu lamiñ baba waroo beccoot apias di ma yóbbaale waaye déedéet du ma yóbbaale journaliste yi non kenn du ma yóbbaale kenn fi mu dool yi daal suba Touba laa war dem maa ngi wax ñëpp ku may liggéey nag say ba nga ko ba suba damay dem Touba waaw fi mu toll nii waaw damay dem waaw damay dem ba pare xam nga lii faaw gars yi gis ko xam a san sama dafa sedd ko am waaw waaw li ma gën a naqari lamb ay blessure dong laa jam <laughs> kese aw ma ci dara lamb day waay lamb lamb di dof la mais la lan mooy barke alxo yëfi nit mooy buñ sàccee sa ni teral la gis nga borom day ju liggéey ku ko yéene fande ginaar lay reeree waaw di la wax ne daal maa sant bu baax makan mais ba pare da cee jekk da nga cee jantal. waaye yow man man looloo sama problème da nga ñaawoo nag da ngaa doon mais Magan. parce que sëñ maa ngi sant. ah xoolal ay eh, sant xoolal gars yi. da nga ñaawoo nag. waaye yow moom Magan. mais Magan Magan mi nga xamante ne ñu ñu jël. oh waay xo aywaay. aywaay soo yore magan isaay maa ngi sant yàlla di belli barke alxuraanu karim suba na ñëpp ñëw maa leen pay sama koñ damaa kontaan barke alxuraanu karim sama muram ne ki ko sàcc maa ngi koy sant ko gërëm bu seetaane lii barke alxuraan na ko dawal ko may naa ko ci xol bi te ñëw ma jox ko caay bi barke alxuraan teral ko maa ko yoral essence un un mois wut a jafe rek mais bi ko yëgee sa liggéeyu ndey la wala lan la sa yaay sama liggéeyu ndey la booy man dama man nag am makan xam li problème man man dama dund lu tar quoi moo tax yii nii yu bari dëgg la day am makan man man man man dama judd ci famille boo xam ne ñoo ndóol yoruñu dañoo sonn ko yaa ngi dégg ma dund ay dund yu garaaw xam nga moo damay wax ko comme ñi nga xam ne ñooy jeunes yi comprendre nga makan damay wax benn lancé bu am solo message bu am solo quoi comprendre nga xaaral yaa ngi dégg wax comme jeunes yi tey kenn ku ne ku am sa waajur na nga fonk quoi comprendre ma la man makat ma wax leen pour mu garaano wax jee fi nekk comme li ngay dégg ay 5 tonnes affaire yooyu noonu kërëb kërëb mais lu bari loo ne man dama yeewu fajar barke alxuraan marché occas na ñi fa nekk laay waxal ma suul sama ndey waa Touba nga waaye man ma juddoo hôpital Ndamatou Cissé Fergan 1997 sixième la wax ne fekkee amul yàlla bu ma àgg sama kër billaahi wala oto bi yàlla bu fenn dama lay wax ne comme nit bu fonk waajur mu lu ne mën na man dama judd dama daa yeewu suñu kër suñu xëyee duñu añee reer duñu ndekki

ak ma suul sama ndey barke alxuraan moo tax comme non bu ma dikkee yelwaane mooy borom bureet yi xam nga oto kër kaab la ñuy jógee ñoo indi oto jën yi mhm. suñ ñëwee borom bureet yi comme leen téere seen bureet ñu aj keesu bureet si aj ko dañ may may benn jën comme daal jëni pare na ba dem seen maal yi ci laay dem yelwaan ay lujum dama demoon ba mairie xàmmee ma mhm. yaa ngi dégg ma ñëwaat Ndakaar dund fi lu gën a tar loolu Patarsen xam nga ko ma nekk rond-point Patarsen aw ma fi dara aw ma kenn ku boo tuwee rompañ patar am ñu jaay fo añ dama daan dem ko añ ba pare ma lekk sa des ah? barke alxuraan billaahi mais moo tax instant yi moo ne la avancement day bette mhm. mais fi mu toll lii bu amee foofu yëpp danaa fa jaar fa ma doon jaar yëpp foofu danaa fa jaar ñu xam ne mhm. avance avancement am na mhm. comprend nga di wax na jeunes yi nañ gën a fonk seen waajur yi xam te na nit ku ne li nga bokk na ciy feer bu sa famille amul sax wane yow feral ne sama sama famille amul nga nekk si daal mais am na ñoo xam ne comme di ay fii laa dëkk di duul loolu bu def oto musuma ko xalaat sama àdduna li ma problème moto bi ma yoroon rek li ma ci daj avant ma koy am li ma gën a feebarloo nag loolu la sama damaa tegoon jeexal yoruma dërëm barke alxuraanul karim yoruma dërëm booy xoola may dajale courtier fii dugg ci ay pel lu ne ma dugg ci gaan xam nga fexe ba am moto taxale ba am ñu sàcc ko mais daal maa ngi sant yàlla di sant sama ñaari waay may wax mooy damaa kontaan ci moom te ba mu waxee dana ma dana danaa indi oto bi te doo gis. waaw kontaan naa di leen wax yéen moom. ba barki démb Jesner la ma xotti. ah 4 waaw xam nga. waaye nag du ma yóbbaale kenn moom. du ma yóbbaale kenn ñoom la Balla Gaye déedéet cat déedéet non non man damaa bari noonu. damaa bari noonu mais du ma yóbbaale kenn Balla Gaye man man Balla waaye dama seq ak ñoom. booy booy bu ma yeb waaye nga ma indi seen oto daa baax. nga naan doon ku ci paat le <laughs> ku ci paat le bu yàgg léegi ko doon départ oto bu yàgg la yor de mbëri kii ki jot oto ba te dëkk géej waay ku ci dama ne la xaalis daal boo ko amee réew barke alxuraanu karim ku ma xuri ma gajj la ku ma xuri barke alxuraan ma gajj la waaw waaye sant naa ñëpp xama di sant di wax kontaan naa di sant sëñ Fallou Seck borom tapisi Touba xayra kontaan bu baax a baax di sant sëñ Massa Ndour borom xam nga na ma waxoon na ma xam nga dina baax affaire yooyu noonu quoi maa ngi sant ñëpp di sant sama benn xarit ku ci mel Birama sama xarit bu baax a baax Birama Diouf maa ngi sant bu baax